laaj bi ma laaj nekk na laaj bu am solo muy manam nan la jangate dialogue national bi ma di len di fàttali ni président de la république dañ ko fal le 24 février avec une majorité très confortable bo xamni ni na ci sukkandiku pour jiite doxal programme mi nga xamni mom la bëgg a doxal amone majorité au suffrage universel ci élection présidentielle am majorité au niveau de l'Assemblée nationale am majorité au niveau du Haut Conseil ndax ndaam sax fofu nekul euh, ben instance bo xamni dañuy délibérer mais pour wax la rek ni que ni kuréel go xamni fuñuy soté xalat wala fo xamni dañ fay jël ay dogal jëmale ko ci li nga xamni mom lañuy la ñuy doxale réew mi moom fa ëpp ay baat kon su ko neexoon mënon na bañ ko falé rek mu daldi di dawal programme am te dara du ci mucc rax ci doli rew mi nek ci jàmm nekkuñu ci rew mo xamni dañu am ay crise d'institution wala lu jar ñu naan euh, mu am obligation wu woote dialogue national waye mom ci gis-gisam ni ñi wara yoré ngor mu tambaliko ci ba mo ba nga xamni falon nañ ko mu dajale mbollem ñi nga xamni ni la andalon pour ñu genn fi nguur gi fi nekkon ci biir Benno Bokk yaakar mu dajale leen andax ñom yor ci rew mi be ñu falat ko deuxième mandat xel momu lalon lolé muy doxalee ak Benno Bokk yaakar même xel mi mo waral mu daal di nak di kay kaay leen ñu waxtaan waxtaan bi nak ñu waxtaan jëmele ko ci euh, ni ñuy yore rew mi ci wàllu décentralisation ñu waxtaan jëmale ko ci wàllu njàng mi waxtaan jëmale ko ci wàllu mbay mi waxtaan jëmale ko ci wàllu ni nga xam ni mooy doxalin bi nga xam ni moom lañu ñu war a def pour jëm ci ay élection ndax élection yu fi am rek dina am ay lënc-lënc yu ci nekk kon loolu déjà maa bëgg réew mi yépp xam ni que ni ku bëgg tëdde njaaxaanaay mooy jël dogal bu mel noonu loolu tax tax président Macky Sall wootee dialogue national mu nekk loo xam ni it lu ma rafetlu la lu réew mi yëpp rafetlu ba mu ko wootee it mboolem ñi nga xam ni ñoo yor ay kuréel yu am solo ñoo xam ni war nañ leen mën a déglu ci doxalinu réew mi ñoom ñëpp rafetlu nañ ko ñëw mooy ci waa parti politique yi nekk ci société civile bi nekk ci këru diine yi nekk ci ONG yi Nek ci bàjjanu gox yi nekk ci kuréel yëpp yoo xam ni que ni war nañ leen a mën ci doxale mi ñoom ñëpp ñëw kon dialogue national bi dañuy ñaan yàlla niñ ko tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi alamin wax day am mana dialogue bi lan moo ko kajuk, a jóg li ko ñu ay manam ay xel ak xalaat yoo xam dañ koy proposé président de la république yo xamni budul sénégalais yépp gis nañ ci seen bop li ëpp ci sénégalais yi gis ci seen bop lu mel non nak wax dëgg yalla ko xamni da nga bëgg li ëpp ci mbolo mi gis ci seen bopp mais kenn la ŋàññi ci yaatal xam nga nak il faut nak ñu andak nak touti ormal askan wi te xamni nak ku ñu jël rek ci dialogue ba euh, du sa doole wala sa man man moo la fa yóbbu kon nañu xam ni que ni nañ la tànne noonu lañu mën a tànnee ñeneen li ci am solo mooy ndax ñenn nañu ñañu tànn ndax seen xam-xam seen dund ak seen péete ndax euh, méngoo na ak li nga xam ni moom lañ jàpp ni loolu la ñu war a doon pour mën a génne xalaat ya ñuy xaar loolu moo am solo. ala kulli haal faaw ñu faaw mu am ku tànn waaw ndax bu fekkoon ni it ñeneen a tànnoon dana am benn wet goo xam ne dina ni ah ñun kat bokkuñu si ñu tànn ñeen fukki loolu amul solo li am solo mooy kenn ku ci nekk na jël bëtam teg ko ci li nga xam ni moom la ñuy xaar ci taataan ko ci dialogue bi. loolu mu am solo ka bokk ak bokkul loolu defe naa ni amul benn solo ndax ña toog ca dialogue ba ay ay responsable lu parti la waa ONG waa société civile. koo fa mën a andi ñoom la nga xam ni moo nekk seen xalaat te ñu togg ko ci seen i kuréel bala ñoo ñëw ci dialogue bi mais loolu lañ fay défendre ak ku ñu mën a jàkkaar loolu la président euh, Ibrahima Famara Ibrahima Sagna tontu na ci te li mu wax it def naa lu leer la jarul ñu ciy dellusiwaat wax na waxu responsable wax na waxu manager gis nga jiite kuréel nekkul lu yomb te taxawaay bi mu taxaw. man de rafetlu naa ko bu baax a baax non am nga Sénégal dañoo mën di wax ci lo xamni ni dara leeru leen ci man bu doon ni am ku ñew won la këyit wala won la chèque wala won la espèce yo xamni non lañ koy dépenser par jour ñu mëna wax mais man yalla daf ma nattu ci mënumaa wax ci ay waxi kasaw kasaw. xam nga buñ lay wax charge charge 10 millions du caagee ne dix millions yo xamni dañuy ñew kenn ku ci nekk tok ñu daal di la ñu daal di koy paaj di la ko séddale déedéet dialogue national bi am na ñoo xam ne fu nekk la ñuy jógee am na ñuy jóge fu nekk ci Sénégal am na ay charge yu war si ñoom kon euh, affaire xaalis bi du loolu moo am solo parce que aussi soo bëggee dara il faut nga def dara parce que doo dajale ay kilifa yu jóge fu nekk te amul yenn. Euh, charge yo xamni ni euh, doko ko doo ko ràngu nek mënta waaye il faut aussi ñu xam ni ñuy wax ak askan bi xam nga bo nee rek 10 millions la ñu jël di ko mooy lay par jour day mel que ni dañu jël dialogue ba manam buñu nekké euh 10 personnes kenn ku ci nekk jël nañ million jox la dédé du loolu ay charge de fonctionnement la léeg-léeg daañu daje daañu añ daañu reer daañu ndekki ñii dinañu pass, ñii xëy na waxtaan dana am solo boo ni du mën a ci benn fan ñu Dakar ñu war leen euh, en charge à l'hôtel mais loolu vraiment ay détails ni daal ci dialogue bi 10 millions. waaw man dafa am problème euh, dafa mais bénévolat du le il n'y a pas de se pas en charge mais mën nga def bénévolat am défraiement Moi, tax ma un problème de de de compréhension problème le de finalement. bénévolat la différence de bénévolat moi, nga def une prestation payante une prestation salariée prestation salariée dafa que dans le cadre d'un contrat de travail boo xam ni am xaar ci yow ay waxtu yo xamni won mako nga liggéey ak benn taxaway ak benn comportement ak ay résultats yo xamni war nga ko joxe en contrepartie d'un salaire mensuel. Il y a le contrat de prestation de service le presta c'est contrat de prestation de service yo xamni kani que ñu la obligation de moyens mais dañ lay laaj obligation de résultats. du dëgg en contrepartie de d'une rémunération n'est-ce pas établi au départ il xam engager, engagé aussi Mon mon de prestation de service Mon nga un travail bénévole dans le cadre d'une association Mon nga association war a représenter association bi Burkina Faso association bi en charge faut fay billet fay un hôtel mais bénévolat donc amul benn contradiction opposition déjà seen tour rek andi na lépp euh, xam nga jafe na ci ngay gis ci àdduna bi koo xam ni wujjëm moo sang wala boog bu la wujjë bi bu ku wujjëm di sang ab taaram dana des mësuñu d'accord avec loo xam ni ñu ngi koy def li tax ñu def ko li tax aussi mësuñu d'accord mooy euh, esprit opposition dafa rafle lool ci euh, mat ci euh, manam esprit républicain gisoon nañ fi opposition yo xamni ci jamono yu le président Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla dolli yërmande temps yi fi nekkee ci opposition nguur gi bu san def lu bax da daan wax ni li baxna na su nguur gi defee safaan ba mu ŋàññi ko opposition bo xamni ni bañ fi taxawlé Ila Touba opposition bi dañoo méré te pourtant kuy dem màggale ci Ila Touba ngay jël kon nag li nga xam ni taxawal nañ ko sénégalais yi teg ci seen bët mu nekk kaay leen ñu waxtaan pour xool nan la yore réew mi président de la république nii lu ngeen fa jële rek lu ngeen fa dogal rek man danaa ko soppi def ko benn ndogal boo xam ni noonu la réew mi di demee mais moom fa la mën a yem waaye nag ku taxaw fële ni mere nañu ma ne xaw ma nag lu tax ñu mere ñu xëy na la tax ñu mere ñu bis bu ñu ko waxee xëy na daañu mën a wu mais pour l'instant bon président de la république dafa ñëw lu mat juróom-benn voire même juróom-ñaari yoon Pikine lu mësul am Sénégal loolu mooy que ni wane na cofeel bu mu am ci gox bi président de la république programme yi mu tëral yépp da ci cëral Pikine moom président de la république Promoville Pikine am na ci defaral ñu suñu jumaa defaral ñu suñu stade. programme de lutte contre les inondations Pikine am na ci les bourses familiales li ci Pikine am benn gox am ko kon moom wone na ni que ni Pikine soxla na ko mu am nag fu mu des.